asalaamaaleykum chers téléspectateurs de la Sen 24 TV maa ngi leen di nuyu nekk di leen ziar di wax sama nuyoo di leen fekk ci jàmm ak salaam kon daal ko defee rek euh, saa su nekk jigal nuyoo ci nga xam ne mooy suñu kilifa diine muy euh, euh, Serigne Mounirou Ndiéguène Ndiéguène moom Assa Pathé Demba Yoro Oumar Ñay Maca Saloum Ndiéguène di leen nuyu di leen ziar di la wax guddal fan lool lool Ndiéguène borom ñaari xilaafa yi Ndiéguène sa toogaay dafa daal di am solo fii ci askan askanu macha allah. di nuyu ki nga xam ne mooy sama invité bi muy Badou macha allah Badou maa ngi lay nuyu di la ziar. maa lay fay soxna si di la ziar. di nuyu waa Sen 24 TV yëpp. Mhm. Euh, rawatina suma rak mhm. euh, ndàgga doon xale bu brave boo xamante ni jàmbaar la. Mhm. wax dëgg yàlla di xale bu gëm boppam. ñoo ngi koy ñaanal wax dëgg yàlla fi mu yéene yóbbu tele bi. mu àgg fa. di nuyu suñu xalifa. muy Serigne Mounirou Ndiéguène nga xamante ni nii. moy suñu khalifa di suñu baay di nuyu yit suñu serigne yi ca ga moy serigne as njegéen mu serigne mustafa di nuyu suñu wa kër ñep di nuyu suma papa Baye mu ndjay Mbaye di nuyu samay soxna euh, soxna marem Sankare soxna Kumba Mbaye ak soxna xudja ma ngi leen nuyu bu baax di nuyu sama soxna yi nga xamanteni ñoo ne ci kër ga yépp muy ñom Adama ñom tendak ñom Bébé amé ñom Salawat ak ñom ñep ma ngi leen nuyu bu baax euh, di len wax alaykum salam wa rahmatullah yen wa sen 24 TV ane li ma ci jaxal xam naa ne Badou moom bu nuyoowul tay ji sama yete keur ga gëm naa ne tey Badou daal di koy daal di ne kay tok ni sha allah ndax ñu ngi soxna yi ñu ngi lay nuyu tamit bu baax a ba ma sha allah tay na badu ñewon fekk si won na ci suñu émission bi nga xamni ne émission ki kan la manam bu déggee ki kan la dañoo bëgg wax nga wax ni kan moy e badu yow la kan ak badu fan la dëkk wa badu moom euh, ben ben talibé la rek bo xamanteni mi ngi juddoo Thiès euh, ci quartier bu ñuy wax quartier keur Maam El ahmed Ahmed euh yaro fa magge fa ay wayjuram don ku ñuy wax euh, Serigne pambay Mbay way juram bu wax Soxna Yaasin Mbay suñu mam bi jur suñu papa ñukoy wax alaaji Maxtaar Mbay nekkon ci wetu Ahmed Ndiéguène dooneen bilaalam noon mu xaddamam doo mu tafsiral ko it wax dëgg yàlla ñun foofu lañ juddoo ci keppaaram la ñu yaroo fa lañ màggee fa lañ jànge lépp fa lañ ko defe euh, ba yàlla def indi ñu tey ñu nekk ci niveau bi ñu nekk mm-hmm. macha allah mu nekk euh, lu daal di am lu solo ndax bu ne da njëgineen la daal di yaroo ëtt ba dafay daal di nekk loo xam dafa daal di am solo kon tey jii nga wax ki nga xam ne mooy suñu Pape Mbaye Masyaallah allah ñu koy ñaan yàlla na ko yàlla xare aduna suñu xarit bobu masyaallah ku baaxoon bëgg doom adam ñu koy ñaan bëgg yàlla na ko bee ak soxnaam soosu bi tanday mbay masyaallah té ñu gis na fi nga xam tay bad bad wax na ni moy iya, iya nah, nah, kan yox na fu mu yaro bad mi ne laaj ndax jaar nga école wala arab nga daal di jaar ndax xam naa ku yaroo ci ëttu njëgee nit gi war ngaa mën a laal dara ci alxuraan waaw. <laughs> voilà Badou mi ngi yaroo ni mu ko waxee rek Kër Maam El Hadj. Mhm. Kër Maam El moom amul ku fay yaroo te doo jàng alxuraan. maanaam macha allah da ngay jàng kay bay yàlla de fëkk la. Mhm. doo nafar nga fàtte. Mhm. waaye Kër Maam El amul kenn koo xam ne di nga fa yaroo te doo jàng alxuraan rawatina suñu biir kër ndax ñun. suñu maam bi ñuy def tuut tànk euh, boobu duggaguñu école mhm. alxuraan lañ daan jàng ci euh, daaray góor gi Moussa Fall mhm. jàkkaarloo woon ak moom di wayjur ci Pa Aliou mhm. moo ñu daan jàngal alxuraan bañ fa jógee it jàng nañ ci daaray Oustaz Aline Dieye yóbbu nañ fa it ñu jàng ndax sam maam macha allah dafa bëggoon alxuraan ndax moom léppam alxuraan la woon kon bi ñu jàngee alxuraan ci tuut tànk biñ ci jógee. dugg nañ école comme ni ko xale yëpp di defee. dugg nañ école jàng ci école Kër Maam El Hadj ba nga xam ni fa lañ nekkoon. jàng fa bi ñu fa jàngee it ba génn fa. dem école Amadou Koli Diop. fa lañ jàng. Mhm. bi ñu jàngee Koli ba dem ba quatrième seconde yàlla def sunu njàng nag. foofu la ko yàlla yamale ndax euh, loo gis lu nekk rek mhm. bis day ñëw mu jeex mhm. xëy na yàlla dafa waxoon ni mhm. dinañ jàng jaar ci étape boobu bu ñu accès ci foofu fala njàng mi di yam njàng nag li koy taxawal lu ci ëpp mooy nit ki day découragé ci njàng mi wa ilaa mu am ay jafe-jafe pour mën a fay njàng ma wala ilaa jënd ay bagage jamono yooyu nag dafa fekkoon suñu maam bii ñu lay wax nga xam ni moo ñu yar comme ñun yàlla dafa def ñu judd rek mm-hmm. suñu way jur ak suñu suñu ñaari way jur yàlla def ñu tàqalikoo mm-hmm. ñu dund suñu maam yar ñu mm-hmm. bi ñu màggee nag nekk xale moo ñu daan moo ñu daan jëndal ay fourniture ak yëpp yoo xamante ni nii moom lañ daan yor ci école bi di jàngi yàlla def nag bi mu génnee àddina jafe-jafe yooyu dalay lay xaw a jàpp da dem ba mujj gi dootoo am inscription yooyu ni mu daan seere hmm. ak kaye yeeg yooyu euh, école seconde da ngay war di sol yëre bu nekk chaque jour nga changé yére hmm. booy xëy jàngi hmm. jafe-jafe yooyu nag boo ko amee ci wàllu ndaw euh, doo gis sa yaay day xaw a metti looloo waral nag bi sunu maam jooju génnee àddina ñu xam ne njàng mi daanaka mënatu la dem ci lañ ko daal di arrêté nag jéem a dem dugg ci marché beeg njaay meeg dëbbal dëbbal yi daal di nekk ci business man ci business bi <laughs> mu mel ni macha allah li nga daal di wax dafa daal di am solo comme suñ euh, doon dugg nga ci business bi business naka nga ko gisee métti na wala métti ak bu njëkk ba ak léegi. waaw business moom business dafa métti parce que damay wax ni métier yëpp. Mm-hmm. métier commerce moo ci gën a métti. Mm-hmm. parce que euh, bu fekkente ni tailleur nga wa ilaa ngay mécanicien wa ngay maçon sa xam-xam ci sa bopp la nekk. Mm-hmm. boo xëyee mën ngaa xëy doo yor dara dem booy wàcc indaale xaalis parce que da ngaa yor sa xam-xam. mais euh, business ou commerce dafa un business bo xamanteni ni bo yorul yi c'est ça nga yor alal bo parce que ba khalis li olof nan khalis moy liguey khalis so il faut investir mm. pour man di mm. parce que commerce dafa doon lo xamanteni ni euh, métier mu doy war la mm. ndax métier la ni ci rek maana di taal yi euh, bu yàggee commerce bi day daal di nërmeelu moo tax muy mbir moo xamante nii dafa xaw a dafa xaw a complexé mm-hmm. bokkut ak yeneen métiers yi mm-hmm. moo tax business il faut nga am ay moyens boo yorul xaalis doo commerce loolu rek mooy mooy mooy différence am ak yeneen yeneen métiers yi ah. mu mel ni kon ci commerce bi noonu ba nga ci duggee ba tey noonu ndax am nga ci loo xam yaa ngi ko ci réccu wala déet ndax des fois di nga foo xam ne dafay daal di metti ak financement yi tamit wa machallah commerce bi. biñ ci duggu euh bi biñu baye jang rek yalla dafa def ñu dem euh, defi euh, dem Gambie. Gambie la dem parce que ñu ngi baye jang presque en 95 96 biñu baye jang dañu dem Gambie nek fa di liggey di di jënd ka jaay di ci dëkk bi di taaba taaba bu événement jotee ñu ñibisi mhm. biñu démé ba nga xamanteni ni gis nañ ni. Mhm. fofu mi ngi tambalé nakari mhm. ñu ñibbisi en 99. Mhm. bi ñu ñibbisee nag dem nañ fi ndar fekk fi suñu mag yoo xamante ni nii mooy suñu taaw muy maxtar lang fa kaar ci moom mhm. euh, ay quelque temps mhm. ñu xam ni lii doxul ci lañ retourné waat bi ñu retourné nag ñëw suñu maam ji nga xamante ni moo jur suñu suñu papa muy suñu maam Cuuna Sàmb ñuy ñaan yàlla yërëm ko xare ko àjjana di ku sonn ci njaboot wax dëgg yàlla mm-hmm. yëkkati ab som jox ñu ni ñu mm-hmm. demal ngay commerce ñu dem dakaar jënd jamono yooyu bijou blanc yi ñoo xewoon mooy jigéen ñi takk bijou blanc bi mm-hmm. ñu dem dakaar di jënd ay bijou blanc di jënd di ñëw di jaay di jënd di ñëw di jaay buñ jaayee buñ paree delluwaat benn bis ñu dem dakaar jënd bijou blanc yu bëri fekk la ñu yoroon capital bi ma yëpp dama ko jël yóbbu ko Dakar jënd ko bijou blanc yàlla nattu ma ma dem euh, Kayaar mhm. ndekete bijou blanc yi bëggul géej eh. <laughs> ma dem ca Kayaar ca géej ga rek man daal bi ma duggee ci géej gi bi may wàccee di ñibbisi bi may sottee bijou yi lépp ñuul uh-huh. kuk <laughs> bi ma ñëwee ci sam maam man ko ko sa ma bijou yi ku koy jaay doo dem géej gi ndoxum ndoxum géej gi xorom si da koy lakk moo tax euh, ñu baree bari duñ ko yóbbu ay kayaar ak yenn dëkk yi bi ma ko defee nag ndeysaan mhm. jamono yooyu mu xaw a jàpp bu xaw a metti mhm. ndeysaan mu mu mu jamono yooyu yëkkati juróomi téeméer ca jamono yooyu ndeysaan daan may jox bi ma ko joxee nag ci laa dem ci maquette bi moom ñëwee ci maquette bi jamono yooyu maquette la ñuy nekk ma ci ànd ak samay xarit ku ñu wax Mody ñu naan ànd ndeysaan nekk ci maquette bi mhm. ñëwee ci maquette bi dañuy jënd 2 million yi ndeysaan maa ngi fàttaliku. maa ngi ci jënd benn jiin 1000 francs ak ñaari tiset bu nekk ma jënde ko téeméer. mu dese ma téeméer ma jënd ci omo. daal dem wàcc midi kër ga fóot ko ba mu set. weer ko ci ngoon gi ma dem muusante maketu muusante jaay ko jaay jiin ba 3000 tiset ya ma jaay leen benn bu nekk 1000 francs ci loolu laa déparé nag jëndaat foofu. ñëwaat ci guddi gi. fóot ko weer laata muy woy ñaata ñuy xëy mu xaw a wow boo xëyee dem marché centrale ci maquette ba moom it jaay ci noonu lañ commencé nekk ci maquette bi di jënd di jaay di jënd ay jean ay t-shirt ay yére ensemble di jënd boo jëndee fóot dem jaay mu xaw a mu metti trop parce que début moom day metti boo xëyee am sa benn cent franc mhm. jënd sa beñe cent franc beñe dugub ndeysaan moom lañ daan ndékkee cent franc ak kafe kafe Touba fukki dërëm fanweer lañ daan ndékkee bu ñu xëyee bu ñu ndékkee après jënd jaay dem def noonu di def noonu def noonu ba ñu gis ni yàlla def na mhm. mbir maa ngi xaw a taxaw tuuti di dëgër mhm. bi ma xawee taxaw di dëgër jamono yooyu si la jiinu kolobaan yi xewoon ak t-shirt yi nga xamante ni mooy nëli yi ñu day dem da dem Dakar jënd sa jiin ay jiin yu bari ak jënd say tiseetu na li boo ñëwee di ko jaayi tiseet bu nekk da nga ciy am cinquante jiin bi des fois nga am ci 1000 francs mm-hmm. boo ñëwee di jaay bu événement jotee nag da ngay am capital boo xamante ni da ngay jënd lu bari pour jaay ko ci événement korité gi mm-hmm. wala tabaski gi léegi nag noonu ci lañ nekkee di di soox di soox di jóg di soox di jóg ba dem ba yàlla def macha allah ñu am ci benn benn capital. boo xamante ni jamono yi 2002 bi El Hadj Diouf indee marque Puma bi marque Puma boobu nag ci lañ gën a relancer suñu commerce. parce que dañ daan dem Colobane commande Puma yu bëree bëree bëri. tuba yu Puma ak t-shirt yi yu bëri bu ñëwee du taxaw dañuy ñëw rek jaay. surtout ba blouson yi xewoon ba bambeuses yi ñuy dem ci màggali Touba yi di dem Tiwaawan di jaay fu nekk dañ fay dem mm-hmm. ñu dem ba yàlla def mu jigi ñu am benn table bu mag ci marché bi marché central mm-hmm. di fa jaay man ak sama gars yi moom Modou Thiam ñoom euh, Modou Ndabar ñoom Paate njaay ak euh, ñoom euh, kii nu mu tuddati As As Diaby mm-hmm. mu nekk góolu jàmmagan suma xarit boobu léegi mu ngi Italie sax ñoo daan nekk foofu ak ñoom wëcc di jaay bu ñuy jaayee ñu jaayee ba pare bu ngoonee ñu wàcc yàlla dem ba mujj gi nag wax ñoom ñun ña fa nekkoon ñu ci bëri euh, man maay mujj jël dem Dakar jëndi bagage bu bari bu ma ñëwee jox leen ñuy jaay ñoom ñëpp ñu ci bëri buñ demee maay jël leen bu ñëwee jox leen ñu jaay bu ñu jaayee ba ngoon gi ñu verse kenn ku nekk jël sa bénéfice may dajale xaalis boobu chaque bi ma jóg demaat Dakar jëndi bagage di ñëw ci njaayum yëre moomu ci lañ tàmbali di dugg ci commerce di business ndànk-ndànk di dem di dem di dem ba yàlla def euh, yére jamono yi nga xamante ni Ablaye Wade bàyyi na chinois yi dugg fi booba la commerce bi tàmbalee yàqu mooy jamono yi ñu duggee ci ay 2004 2005 yooyu mm. foofu la chinois yi duggee nag indi seen bagage yi nga xamante ni bi ñu ko indee njaayum yére yàqu na njaayum dàll yàqu na kenn mënatu cee am dara jaaykat yi ba tey ji loolu leen jàpp jaaykatu yëre yi parce que bu fekkonte ne njaay mi nam demee woon ca jamono yooyu la ñuy jaay qualité di jaay loo xamante ni dana dana dana yàgg boo kon heure bi ba tey commerce bi dana dox dana neex mais euh, pacotille bi dafa trop trop trop ci business su yëre bi ba yombo yomb yomb goo xam ne sénégalais xamuñu lu lu yomb loolu moo gën a daaneel euh, commerce bi mm-hmm. ci lañ demee ba jaayum mm-hmm. marché central nak, mm-hmm. en 2002 bi ñu ko tojee loolu moo ma parce que bi ñu ko tojee di defar marché yi ñu yóbbu ñu fële ca euh, kii ba côté Saam marché Daaru Salaam bi bi ñu demee foofu marché ba doxul ci lañ dem muusante wut fa place nekk fa depuis 2002 ñu ngi woon muusante ba suñ jonn yàlla tey jii ñuy wax ak yow ñoo ngi marché muusante di yëngu ci njaay ci commerce business euh, dem ak dikk di doxal yàlla defit wax dëgg yàlla ci li nga wax ci wàllu financement yi mm-hmm. financement yi moom damay wax nii euh, commerçants yi wax deug yalla buñ ci yaakaaree état mom duñ parce que état euh, damay gis ni chaque jour ñom bu joxé ay financement duñ ci bolé marché yi mhm. duñ ci commerçants commerçant yi mhm. parce que en waxé ñu ne yor nañ xaliss ndax bi ci jek bi ba du nangul rek commerçant yi ñu xaliss dañu koy jiñ rek <laughs> gis nga bima ci gëna metti moy mhm. ci covid bi jamono covid bi bo ñëwé dëkk ci koñ buñ bindé sa tour ci aide bi alimentaire bi ñu ne commerçant la ñu ne Macky Sall bi muy mayee sax courant bi. daf ni bu ci commerce bokk. compteur commercial yi xam nga compteur commercial ñun commercant yi. Mm-hmm. kilowatt bi ñoo ñu koy jaayee fanweer. ci marché bi fanweer lañ ñu koy jaayee di ko jaayee ci kër yi ñaar fukk te dañoo xaw xam ni ñun ñene ca marché ba ñoo yor kër yi ñooy jënd ci kër yi ñooy jënd ca marché ba kon nag di ñu war a jaayee kër yi war nañ koo mën a jaayee marché bi mais buñ ne marché bi commercial la rek ñu am différence su fukki dërëm mm. loolu ëpp na trop mm. te loolu teg nañ ko commerçant yi te metti na muy jafe-jafe ci compteur yi mm. looloo tax courant wu marché bi di cher des fois am dara li ñuy liggéey loolu aussi bi mu amee ci covid bi tax na ñun joxuñu ñu mayuñu ñu courant bi ñu doon maye. Mm-hmm. Macky Sall dañu commercial bu leen kenn may mayuñu ñu ci. Mm-hmm. joxuñu ñu aussi ci aide. Mm-hmm. kon financement. amul benn boo xamante ni mus naa jóge ci état. ñu indi ko mu ñëw ñu ne nañ jàppale ci marché yi wa ilaa nañ ci jàppale commerçant yi. musuñu koo gis. amul musul am. loolu aussi bu fekkee am na dafay dem ba mujj gi commerçant yi li ñuy man mooy dem ci banque yi. liggéey ak banque yi rek. parce que banque yi ñoo fi ndax commerce banque yi aussi ñoom dañuy liggéey di jaay seen xaalis foofu sax man xam naa ni dinaa fa dugal loo xam ne xëy na publicité lay doon ndax sama banque dinaa ko gërëm ndax wax dëgg yàlla ñoo ma jàppale xaw ma euh, ba ma commencé ba fii may agsi tey moo ma jàppale muy crédit mutuel du Sénégal ñoom laay liggéeyal wax dëgg yàlla ñu may jox ay financement bi ma commencé ci benn cantine ba tey ma yor ay magasin lépp ci ñoom laa ko jaare ñoom ñoo may jox ay financement may liggéey ak mhm. macha allah mu nekk euh, kàddu yi am solo ci biir finance ci biir fi nga xam ne mooy euh, liggéey bi commerce bi ban nga ci mën a fàttaliku loo xam ne métti na la ci biir commerce bi ndax des fois comme ni nga ko waxee woon sànq jënd nga ay bagages yóbbu ko géej euh, mu daal di yàqu. mais des fois dina am torof torof yoo xam di nga ko di nga ko jànkonteel yoo xam dafay métti daal sa biir xol te doo gis papa joo ko jooy doo gis waajur boo ko jooy da nga ci mën a fàttaliku. waaw commerce moom dara dara li ma lay wax mooy. Mm. li ma ciy fàttaliku li ma gën a li ma gën a métti ci lu yàqu. ci lu yàqu ci liggéey bi mhm. mooy jamono yooyu ma lay wax mhm. jamono yooyu nga xamante ni nii euh, Ablaye Wade ubbi mu dugg mhm. jamono amul capital doo ponkal deg ñëpp jamanoyo wàcc jamono yooyu dañoo wàcc carrément ñun ñëpp a wàcc ci lañ demee ba man ci laa bàyyee sax jaay ak dugg ci téléphone mais jamono wax dem na ba ñun suñu capital ku daan yor ay plus que 3 4 magasin dem ba sax ci jamono yoyu da ngay da ngay dem ba da nga reprendre à zéro danaka da nga dem ba wat ci maquette ba nga nekkoon mais nak dafa doon mbir dafa doon lo xamanteni ni gis nga mbir bo amé gëm-gëm motax xalé légui li ñuy def rek moy nañu am gëm-gëm gëm ni man dama wara réussir yalla moko yor nak parce que nit ki mom yorul réussir yalla ko yor mais bo gëmee ni man dama wara réussir rek yalla suñu borom dina la jappalé ak lo dem dem dem lu liggéey bi wacc wacc wacc bo taxawaté tak sa ndig rek da ngay mëna a relever wu wat mais jamono yoy mom wax deug yalla am nañ ci lu luñ naqar ci commerce bi mm-hmm. am nañ ci ay tolof tolof mm-hmm. amee nañ ci ay jafe-jafe yoo xam ni mm-hmm. wax dëgg yàlla mënuñu ko nettali parce que jamono yooyu metti woon na trop trop trop suñu commerce metti na trop <laughs> kon macha kon yéen ko dégg ki nga xam ne mooy daal di nekk Badou macha allah Badou Mbaye dégg ngeen fu mu ak fu mu jaar yëpp li mu naan jàmbaar rek moo fa daal di mën a jaar kon dañuy wax ñi nga xam dañuy daal di liggéey képp ku déglu badu mi nga gën am jom gën am fulla ak fayda xam ni commerce bi nga cee tedd macha allah comme ni ngeen ko gisee rek sànq ba tey li nga xam ne badu waxtaane nañ ko fii ci émission bi nga xam ne mooy émission kii kan la macha allah du ma ki nga xam ne mooy muy ibu mbay macha allah di wax ibu mbay lu mu defa gën lu mu def lu muy wàññi defa gën lu mu def nee naa ibu mbay moo daal di jaar fii ci marinière bi macha allah mu nekk marinière tàngaay nee naa ku nga xam ne dafa bëgg daal di lakk sa yàpp ya, rek ci gi insha allah bu ne neexee yàlla jokkal ki nga xam ne mooy Ibou mbay nee naa marinière rek lay def fu mu daggalul ku ne doo son te moo fi nekkal aaw yi nekkal fi ñaareel yee ñetteel ak ñeenteel yi kon macha allah kon Ibou mbay yow sa sa jàmm yàgg mi mel ni mbaddu ko ñu ko daal di gisee ak ni ñu ko déggee rek ñu tojoon marché bi ngeen dem fi xam ne mooy marché centre mooy marché Moussante marché Moussante yéen jafe-jafe ngeen fi am foofu wala wala amoo leen fi jafe-jafe waaw Adja waaw euh, Ibou Mbaye moom bala maa wax ci loolu Ibou Mbaye sama rakk ju baax la wax dëgg yàlla doon xale bu yaru wax mhm. yàlla jox ñëpp cër ci kañ ba mhm. ñoo ngi koy ñaanal aussi moom it métier bi yàlla def mu bënn amiin amiin waaw marché Moussante mhm. yàlla def na bi ñu fa ñëwee en 2002 comme ni ñu ñëwee ci marché yëpp dañuy ñëw rek nekk suñ place di liggéey mais ñun yàlla dafa def ni euh, bu ñu nekkee ci milieu dañuy défendre milieu boobu parce que suñu suñu suñu avantage ak suñu intérêt foofu lañ koy jëlee ndax bu ñu xëyee marché Moussante la ñuy yendu bi ñu fa nekkee 2002 nag dañoo ñëw dañuy ñëw toog di jaay comme ça suñuy morom. Mm-hmm. mais bi ñu demee ba nga xamante ni yàlla def na 2009 euh, jot na. Mm-hmm. ñu war a ñëw war a fusionner ñaari UNACOIS yi. Mm-hmm. muy UNACOIS def ak UNACOIS national. bi ñu ko war a fusionner 2009. ci lañ dekkoon président Idi Thiam ci bopp bi. mu ñëw moom moo nekkoon président national bi moo indi UNACOIS jàppoo def bi ak national ak boole mu doon UNACOIS jàppoo bi ñu ko waree fusionné nag comme en tant que xale dem nañu bokk ca gis suñu mag ñi nga xamante ni ñoo fa nekkoon ay suñu bàyyi muy ñoom bàyyi Ousmane Mbaye ak ñoo ñu nga xam ne ñoo nekk ci marché bi nekk ci délégué yi bokk nekk délégué marché bi mhm. ñu dem fekk ko foofu di xool ci ñoom li ñuy def lu mhm. ñu demee ba nga xamante ni ni yàlla def na mhm. dikk nañu ba ay 2012 mille 2012 ñu créer benn mouvement boo xamante ni ni mouvement bi ñoo ngi ko tudde woon euh, euh, alliance des marchés et de l'entrepreneuriat pour le développement. Mm. ndeysaan jamono yooyu suñu baay Abdou jaw mi nga xamante ni ndeysaan yàlla def na mu génn àdduna fa ni passé mm. di suñu xarit wax dëgg yàlla. Mm. ànd nañ def lu ne ñu nag moom. moom lañ jiitaloon mu nekkoon ca bopp ba. Mm-hmm. doon ko jiite. Mm-hmm. bi ñu demee ba taxawal alliance boobu. Mm-hmm. suñu kilifa gi nga xamante ni moo nekkee marché ba di Baye Ousmane mbay daal du ñuy woo en 2014. xamal ni ñu bureau marché bi daf ko bëgg a yaatal. ubbi ko jël xale yi nga xamante ni gis nañu mën nañoo jàppale marché bi pour liggéey mu dugal leen ci ci la yàlla def nag ñu dugg ci bureau marché bi dugg ci bureau marché bi nekk ci wax dëgg yàlla di taxawu li nga xamante ni la marché bi di soxla nek ci jafe-jafe marché bi jafe-jafe marché bi nag bëri na trop trop trop muy marché Moussante buñ fi toogee di lim moom duñ fi jógee ndax jafe-jafe yooyu buñ fi lim émission la du jeex ndax marché bi chaque jour ñoo ngi ci ay jafe-jafe mhm. waa yàlla dafa def nag xëy na euh, maire yi nga xam ne ñoo ko daan yore mhm. xëy na seen loxo dafa jotul seen ginnaaw parce que mënuñu euh, defaraat marché bi mhm. te marché bi la plupart li ko mën a defar dëgg mooy defaraat marché bi rek pour ñu mën a liggéey marché bi mën a ubbeeku am ay bunt am di dem di dikk bu ko defee commerce bi mën a dox normal ci biir marché bi mais loolu yàlla def na ni ñoo ngi ci doon liggéey ak maire bi jëm muy Pape Bassirou Diop mm-hmm. antuwul ñoo ngi ci waat di liggéey ak maire bi di ñëw bi nga xamante ni yàlla def na nag ñu nekk ci bopp bokk ci bopp marché bi di liggéey mm-hmm. yàlla def élection ñëwaat 2015 mm-hmm. élection inaqua yi ñëw bi mu ñëwee ñu postulé wu doon bokk ci candidat yi waroon a doon bokk ci ñu ko jiite président yi bi ñu ñëwee postulé wu yàlla def euh, mu am ay jafe-jafe jamono yooyu euh, ci diggante ñun bi marché Moussante mhm. ak bureau national bi nekk Dakar parce que boobu euh, suñuy carte génnul bloqué nañ ko mhm. wax nañ ñu ñun duñu ay membre ñu nekk ci coow loolu di reyante ñun ak ñoom mhm. fekk booba ñun ak waa marché central ñoo àndoon ak waa Grand Thiès bëgg indi benn changement boo xamante ni dañ ko indi ci UNACOIS quoi ànd jàppoo waaw koy ñu ànd si <laughs> doon benn bëgg indi benn changement ah. léegi nag ci biir loolu ñu nekk ci dekk ci nekk ci nekk ci ba am na ci boo xamante ni sax préfecture la ñu dem fa waxtaane affaire bi dem empereur boo xam daal wax dëgg yàlla dem na ba mujj jaaxle ñu ngi ko mujj réglé Dakar bureau national mhm. bi ñu demee ba nga xamante nii gis nañ ni mhm. marché central moom mënul dem sans muusante muusante dem sans central parce que la ne marché central moo ne muusante mhm. fi ne nii lépp loo xamante ne xew na muusante suñu marché mën nañ koo gérer suñu bopp suñu biir marché central la fa ne ñoom mën nañ koo gérer seen bopp seen biir marché central Moussante Grand Thiès su ñu booloo rek lépp loo xamante ni war nañ koo def ci dëkk bi dañuy taxaw àndandoo def face jàkkaarloo ci loolu. parce que loolu moo waral. Mm-hmm. UNACOIS jàppoo bi nga xamante ni ñun ci lañ bokk. Mm-hmm. muy délégué marché central. mooy président bi. délégué marché Moussante muy Ousmane Mbaye ci UNACOIS fa la bokk dafa bokk ci bureau national bureau régional bi. bi moom bokk ci délégué yi. may vice président bi. Euh, délégué marché Grand Thiès bi suñu Baye Cheikh Gueye moo nekkoon ancien président UNACOIS ba tey mu ngi ci bureau bi a tax UNACOIS jàppoo bii fi ñu nekk à Thiès ñetti marché yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci Thiès wax dëgg yàlla euh, kenn ci ñoom du bàyyi. dañuy jàpp pour UNACOIS mën a avancer. bi nga xamante ni nag yàlla def na nag euh, élection yi passé na parce que boobu defaroo rek la war a def ñu bàyyi délégué marche centrale mu jiite ko doon président bi jël ma man toftal ma ci ginnaawam parce que marché bi. Mm-hmm. Euh, kàdduk marché bi ci suñu délégué mm-hmm. ñoo ma yóbbu foofu ci ina quoi mm-hmm. ñu nekk fa nag wax dëgg yàlla di liggéey di def li ñu war def donte nag yenn saa yi mu baax yenn saa yi du baax parce que euh, nit doomu aadama doomu aadama rek nga mm-hmm. mënoo matale lépp des fois nga def lu baax des fois nga def loo xamante ne aussi sentir nga ni yow baax na mais ñi ngi koy defal aussi duñ ci yëg seen bopp te àdduna li ci gën a jafe ma la koy wax fii tey mooy liggéeyal commerçant Mm, ndax lan commerçant ah. non looloo gën a metti looy gis ci àdduna parce que gis nga nit ki nga xamante ni amul salaire mm-hmm. yaakaarul kenn ku dul poosam bii mm-hmm. te mi ngi ci biir poosam mi ngi ak ay bagaasam di jënd ka jaay mm-hmm. gis nga boo ko nee dama ni mu déglu la rek dafa dafa da koo neex parce que commandé woo ko fayoo ko weer li muy liggéey ci poosam lay jóge boo ko nee dama ni mu dégloo dafa ko neex moo tax jiite commerçant moo gën a metti looy gis ci àdduna bi yow mi leen di jiite yaay sonn parce que suba ngoon yaay jóg di nekk ci seen activité di dox di dem di ñëw di indi te ñoom du ñu yëg sax yaa ngi dox ñoom fa ñu toog fa la ñuy toog yaa ngi défendre yaa ngi dem yaa ngi jëg yaa ngi indi te ñoom fa ñu toog ña ngi toog yow sa liggéey boo demee ba yow amoo ñu la ko gerel sa liggéey dootul dox moo tax ñun ñi nga xamante ni dañuy nekk ci ci bopp marché yi nii di liggéey la plupart lu ci ëpp dañuy am ñoo xamante nii dañuy gérer suñu liggéey parce que man mii di wax ak tey jii sama place yi nekk fii muy bii muy place bii muy place bële bi ne marché daal laa xam ni man maa fa nekk mhm. képp koo xamante ni nii sàcc nañ la danañ la fexe ñu fay la ah. waaw kuñ sàcc ñu fay la kuñ dajji buñ sàccee sa place bu dul xaalis bu dul or bagage boobu mu fa mën a jël dina ñëw xayma ko yëkkati dara jox la pour nga redémarrer waat. loolu waa UNACOIS bi ñoo koy def. non non loolu marché bi. marché bi ci que marché bu nekk da ngay jéem wu ci sa biir bopp. Hmm. sa marché. UNACOIS hmm. nag mooy fi marché yi daje. d'accord marché ak commerçant yi fa ñuy daje. Hmm. foofu mooy UNACOIS. boo demee ci sa marché ba am fi benn problème boo xam ne mënutoo koo régler da koy wax UNACOIS ñoom ñooy dem jéem lijjanti loolu. waaye ñun yàlla def na ñun marché Moussante loolu daluñu parce que problème ak suñu dirigeant yi nga xam ne ñoo fa nekk ma ànd ak ñoom mhm. muy ñoom Thierno Ndiaye mhm. euh, Papa Ndiaye ñoom Baye Sidi ak suñu délégué bu mhm. mag boobu muy Baye Ousmane Mbaye lépp loo xamante ni man nañ ko ci marché bi ñu ngi koy def marché Moussanté aussi organisé wu na ba yàlla def na politiciens yi am na ay xaalis yoo xam ne dañ dugg ci marché bi bu élection jubsee di ko mayee ci marché yi euh, marché Moussanté en 2014 ku ñu wax Thierno Alassane moo ñu mbëkk may 1 million 500 2022 euh, bi passé mhm. Yankhoba Diattara may ñu 2 millions Idrissa Seck mayat ñu 2 millions Haïs mhm. Bobo aussi marché bi duñ ko lekk duñ ko dugal aussi ci keesu marché bi parce que dañ koy jël mhm. xaalis bobu euh diko lebal wa marché bi dañ lay lebal 100 000 francs Vous la 100 000 francs ngay fay 1 1000 francs ba ila weer bi chaque cinq nga fay 30 000 4 mois yi 120 000 lay doon ñu delloo la 14 000 jël 6 000 intérêt bi lebalaat la 100 000 dem nañ ba actuellement ñoo ngi ci presque 140 personnes yo xamanteni label nañ leen ci marché bi té biñu démarré 15 personnes lañ démarré won mm. mais actuellement ñu ngi ci 140 personnes yo xamanteni ni chaque fin du mois danañ label ben groupe de 50 de groupe de 40 groupe de 20 lo xamanteni ni marché bi ñuko jité mm-hmm. comme xaalis la bo xamni man moomuma ko mm. délégué bi moomu ko Pape Ndiaye moomu ko marché bi lañ ko may té mënu ñuko séddoo nañ ko leblante ci suñu biir mm. ku liggéey fay ñu lebalaat la bu ñu amé di jur ñuy lebal kenen lolu aussi marché bi mo ngoy def li nga xamante xamante ni aussi it euh, moo jëm ci wàllu social dimbalante lépp loo xamante ni am na ci marché bi muy dese muy euh, nit ku feebar wala dara dinañ dem ci li nga xamante ni mooy kees bi nga xamante ni mooy keesu duus bi mm. duusu marché bi fa la dem jël fa jéem a xool ñi nga xamante ni ñu ngi leen di jàppale ci ordonnance yeeg ku gaañu loo xamante ni nii dëkk bi soxla nañ ko pour bu ñu waree am point de presse boo xam ne marché ñoo koy bokk suñu participation bu ñu waree dem Dakar réunion war wilaa ñu war a dem euh, bureau bureau bi nekk marché central mm-hmm. paas yeeg yooyu yëpp mm-hmm. marché bi loolu ci xaalis bi nga xam ne mooy génn ci xaalis douce bi fa lañ koy jëlee en charge mm-hmm. di ko joxe ak li nga xamante ne ni nañ ko suñu nawle yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi loolu yëpp foofu lañ koy jëlee kon yàlla li nga xamante ne ñong koy def ñun mhm. ñong koy def diko dello wat marché bi mhm. parce que commerçant yi ñoo tax ñuy sonn ñoo tax ñuy liggéey ñoo tax parce que ñun ñoo am euh jotuk bàyyi suñu liggéey ñëw nekk ci seen kanam dinañ leen jiite kon lépp loo xamante ne nii mi ngi dugg ci marché mbaa muy génn ci marché bi war na transparent war na leer ba bu ëllëgee buñ fi jógee keneen koo xam ne nañu dina xam kat ñii li ñu waroon a def def nañ ko parce que alal lu mu bëri bëri bëri bëri da ngay faatu bàyyi ko fi bis boo jàppee ne bis bii danañ ma takk jàngal ma fukki xul walaaw ak benn dugal ma ci biir suuf delloo ma sama borom kon lépp loo xam ne yaa ngi ci di ko def war nga koo mën a def te yàlla rek tax nga xamante yow ab jaam nga boo ñëw fii mm. te bis yàgg yàgg da ngay dellu liggéey nag jiite mbooloo nag mm. jafe gi mu jafe mm-hmm. moo tax loolu parce que mën nga cee gis mën nañ la cee ger mën nañ la cee jàpp mm-hmm. parce que man mii di wax ak yow mm-hmm. ah, tentative d'arrestation bu ne am naa ko chaque bu dul jeex chaque jour da ngay génn problème am nga def point de presse gars yi ñëw arrêté la wa ilaa ñu ñëw dañuy fay patente nga jàkkaarloog ñoom nangam problème bu nekk da ko ciy am ci tentative d'arrestation opteel ni tey sa benn tànk mi ngi ci biti benn tànk ma nga prison ba parce que nag yaa opté ni nag maa fas yéene jiite mbooloo mi te li mbooloo mi bëgg ngay dox mm-hmm. mbooloo mi li ñu bëgg Mm-hmm. dëppoowul ak yoon mm-hmm. mbooloom commerçant lu ñu bëgg du dëppoo ak yoon mm-hmm. mais comme dëppoowul ak yoon nag yow mi ko jiite nga ñëw di ko défendre benn ñaar mooy am autorité yi am compréhension waxtaan ak yow wa ilaa ñu jàkkaarloo jàmmaarloo ak yow jàppale yóbbu ci yoon rek loolu doo ko bañ chaque jour ci loolu ngay nekk te loolu aussi dañoo xam ni suñu suñu suñu suñu bëgg-bëgg la moo tax ñu nekk ci di ko def marché bi nag wax dëgg yàlla euh, marché bu neex yore la marché Moussante mhm. parce que actuellement may wax ak yow nii marché bi benn bopp la mhm. marché Moussante wax dëgg yàlla mhm. marché nag dana am ay xiiroo ay ŋaayoo ñii di wax fii des fois ñi wax fee ñi jaar fi ñu jaar fee mais ak lu mu bëri bëri bëri bëri bëri aussi seen kàddu gi yëpp dañ koy jëlaat dénk ko kilifa gi muy Ousmane Mbaye lu mu ci wax rek marché bi ñu ñëpp ci loolu la ñuy jaar mu mel ni damay daal di lay wax foofu tamit waa marché foofu mi Ousmane mi ngi daal di dugg léegi di la gërëm ne wax dëgg yàlla ku baax nga ku mën a sonn ci doomu aadama te liggéey bi oyofal nga ko ci lu baree bay yaa ngi ko ci daal di jàppale ñeneen ñu dugg ne Ousmane ne Badou borom baax la Badou mi ngi daj lu ne ci biir marché bi des fois dafay daal jël li nga xam ne mooy alalam di ko def ci biir marché bi dimbali ñi nga xam ne mooy na néew di doole yi kon Badou nan ngay jàngataat ci li nga xam ñoom nga nekk tey sa liggéey bi foofu ci biir marché san marché kii bi muusante bi mooy li ma la wax rek ñoom ñoo tax ñuy sonn ndeysaan marché muusante mhm. ñun ñoom ñoo tax ñuy sonn parce que mhm. déggal nañ ñu jox nañ ñu cër boo xamante ni nii ñun bu ñu jaayul suñu bopp suñu bopp jël lépp def ko ngir ñoom mhm. marché muusante boo ñëwee di leen laaj dara pour ndimbal wala dara donte sax yooyu yëpp def nañ rayante nañ ba bëreetu fa hmm. ndax luy xew lu nekk rek comme marché bi am na dara ci kees a ngi fi danañ dem jëli ko fa mais boo ñëwee sax di leen laaj dara hmm. duñ la laaj foo ko jëme duñ la laaj foo koy def ak fan nga koy yóbbu seen yoon nekkul ci loolu ñoom yow mi leen jiite yaa leen doy soo ñëwee ni leen ina quoi danaa la mën xaw ma ina quoi xaw ma maire xaw ma préfet xaw ma kenn yow laa xam seen yoon newul ci loolu kon nag ñooñu dañoo neex jiite hmm. parce que yàlla dafa def ay taalibe ñoo fa nekk ñoo xamante ni nii mag ñu xale yoo xamante ni ñu jàmbaare am jom jigéen ñu am jom am fulla mhm. ki ki leen jiite di suñu jigéen ju baax muy ami Collé Dia sama xarit wax dëgg yàlla mhm. moom it jàmbaar la di rayante ci marché bi subaak ngoon bu dégg bëccëg moom baal ma foofu ami Collé mi ngi di wax ne yow bu la daal di gisee day tax mu gën a am jom gën a am courage ci li nga xam ne muy ci liggéey bi ndax yaa ngi ko ciy jàppale bu baax a baax ndax da nga nekk góor di ko daal di jàppale doo ko faqatal benn yoon moom tamit mi ngi lay gërëm foofu di la sant la jigéen ji mën góor a ngi noonu moom sama xarit la mhm. dafa doon sama xarit parce que li ñu boole mooy marché bi man ak moom wax dëgg yàlla moom it Abi Collé ànd nañ man ak moom mhm. aña gerte caaf ndeysaan aña xaal lu ne aña nañ ko ndax marché bi ko ndax bu coow amee nii rek moom ba ma koy ñoom jël des fois sax danaan ma yow dama laa yërëm yow bu coow amee yow rek yaa may yëkkati yow yaa may sonal ma ne ko noono parce que gis nga jiital nit dafa xaw a metti mhm. gis nga buñ la jiitalee defal li nga war a def rek mhm. li ci des lépp yàllaa ko yor te ñu mel ni waa marché muusante mhm. dafa dañoo doon ñoo xamante ni nii euh, xam nga nit ki ngay jiital mbir am nga ni ko sawaay tëjal ñu dem nga ñu dem xeexi ko mu naan la tëju maa tëj marché amul loolu ñoom dañ naan la demal bis bu mbir mi demee ba kale ñu woo ñu ñun ñu tëj marché bi ñëw ànd ak yéen kooko neex a jiital kon marché bu mhm. musante marché bu neex a jiital wax dëgg yàlla ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ca booba daal wax dëgg yàlla mhm. gisuñu dara lu ñuy sikkee commerçant yi mhm. bu jafe-jafe amee daal xay na ci ñun la xëy na ñun daal des fois ñooy def ay dérive wala nangam waaye wax dëgg yàlla commerçant ya fa ne gisuñu luñ leen di sikkee moo tax lépp loo xamante ni yëg nañ ko ci ñoom danañ ci teg suñu bakkan ba lu ñu jaar ñu def ko ah. dëgg yàlla dinañ euh, dinañ gërëm aussi it àggaguñ sax mais comme marché bi lañuy wax maire bi nga xamanteni mo fi ñew di Ousmane Diagne hmm. wax deug yalla maire bi euh, maire bu maire bu maire bu bu mën a dialoguer la maire bu mëna a waxtaan la hmm. parce que lepp lo xamni xewna ci marché bi hmm. buñ ko wowe wax ko ko rek wax deug yalla dana ñew automatiquement yabal ay service donte nak amna ci yo xamni manké na ay yoyu ñu ci waxtaan ak mom ta xamna ni <laughs> dina ci jàpp <laughs> ah, dina dina ko jéem a def inshallah rabbi inshallah ma macha allah mu nekk la di am solo ci ki nga xamni moy Ousmane Diagne kon yéen ngeen daal Ousmane Diagne daal fu mu leen féete daal baax na wala macha allah Ousmane Diagne wax dëgg yàlla euh, mhm. Pape Basirou Diop moo fi nekkoon li ñu def ci marché bi la moom wax dëgg mhm. ba mu ñëwee ba tey mhm. xam nga nit ki nii du ma fi marché bi moo ko moom ci ay prérogative la nekk actuellement ci cinq ans yi du ne bu taxaw ni man du ma fi def dara te laajuma avalu délégué yi kooku waxtaan fa la mën a yam ubbeeku fa la mën a yam mhm. du xuloo ak ñun du jàppante ak ñun bërki démb dafa dafa euh, euh, autorisé benn foire ba waa ji ko xaalis mhm. autorisé fekk waxtaanoon nañu ak le préfet départemental di Diagne ñoo ngi koy ziar bu baax moom it suñu xaraj xarit la préfet jàmbaar la wax dëgg yàlla moom it mhm. di ci jaaral li nuyu préfet Faye ak préfet si ñoom ñëpp suñu xarit lañ ndax ñu baax lañ wax dëgg yàlla ba autoriser vous ko bi mu ko defé fekk waxtan noonu nañu bañu début ramadan ba lan démé tabaski mm-hmm. dëkk bi bu fi kenn foire nañ ko baye commerçant yi mais bi vous ci jour vous wax ak mom mm-hmm. ci tang tang bi la recevoir à mu ne ko annuler foire nga dem jëli nga barke Rasulullaay te loolu am na ñeneen maire yoo xam ne boo ñoom dañ naan non autorisé naa ko te maa may bii jàll ak nangam nangam mais wallahi ci tàng-tàng bi la ñu waaj annulel bi nga dem jëli xaalis bi nga delloo waa ji xaalisam parce que sama kaddu maa ko waxoon te sama kaddu ko fonk laa daanaka ñun marché Moussanté lenn la ñuy jàppe nit de kaddu gis nga sa kàddu gi boo ko fonkee loo ñu wax rek ñu def ko mais boo fonkul sa kàddu mënoo ñëw wax dara lu ñu mën a dégg te Ousmane Diagne macha allah fonk kàddoom la fonk kàddoom kon daal gis ngeen daal fu mu toll de masse mousante daal mi ngi nekk changement boo xam ne macha allah daal waaw mi ngi mi ngi mi ngi ci góorgóorlu moom parce que luñ ko woo man cay def mais am na yu ci des mhm. am na ci yu des yoo xamante nii wax dëgg yàlla mhm. euh, dinañ ci waxtaan ak moom mu jàppale ñu ci lu mel ni chambre froide bi nga xamante ni ni moo nekk ci marché jën bi biñ ko defaree ba léegi amul chambre froide mhm. membre chambre froide boobu nañ ko di lu mel ni aussi mbaaru yàpp bi mbaaru yàpp bi dañ koo toj parce que fan yële passé dafa naroon daanu ñu toj ko mais biñ ko tojee ba léegi wax dëgg yàlla mbaaru yàpp bi mënuñu ko defar mm-hmm. te wax dëgg yàlla jaaykatu yàpp yi sonn nañu te yàpp ak nawet ànduñu mm-hmm. ndax buy taw ndox mi dal ci yàpp bi da koy yàq te jënd sa yàpp rey ko sa nag mm-hmm. teg ko ndox mi wàcc ci mu nëbal loolu wax dëgg yàlla bay porte préjudice te ña fa nekk ñëpp suñu ay rakk lañ ak suñu ay ndijaay suñ sañoon ñu fexe leen liggéeyal seen place yi ñu dellu ca ndax wax dëgg yàlla nawet bi ñëw na te danañ sonn su fekkee mënuñu koo liggéey fii ak nawet bi nañu xool beneen solution bu ñu leen mën a dimbalee ba seen mbaaru yàpp ba seen yàpp bi du yàqu diggante fii ci ak nawet bi jàll ñu mën a delluwaat ci table yi nga xamante ni fa leen joxoon waaw kon aca bokk Ousmane Diagne déngal xam ne mooy Badou loolu la daal di wax mu nekk lu daal di am solo kon Badou ba tey du ma daal di bàyyi di dama laaj Badou naka ngay dundee li nga xam ne tey métier bi nga ndax nee naa Badou moom businessman la borom affaire la la loolu la nit ñi wax. Mm. ma koo dégg mais Badou nu ko koy boole ak sa sa dund sa njaboot ndax des fois tamit est-ce que nga am vie soxnaa ak xale yi. waaw loolu moom dinaa si war parce que. taxawal Badou taxawal nag moom lay foofu de ndax tamit bul justifié des fois tamit nga yaa ngi dem ci métier bi da fekk yaa ngi dem feneen na leer de. <laughs> xam nga Adja Adja ab commerçant moo amul jot. ndeysaan commerçant ah. amul jotu. Ah. naan nit ki maa ngi dem. wóor na actuellement actuellement heure bi ma nekk nii def ak émission sax. samay ay clients yi boo demee ñu may xaar sama place. léegi boo boo boo jógee. Mhm. ni soxna si maa ngi dem marché. Mhm. te demoo marché. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla. Ah, ah, ah. loolu day doon loo xamante ni du yow defu sax kilifa. say say say soxna du la respecté. mais boo gisee liggéey bi. yomb ci man. boo gisee liggéey bi yomb ci man. lenn moo ko waral dama am soxna yu baax. wallaahi laazim. dama am soxna yu baax. yu baax. Ajaa man du ma jënd yére. ndeysaan du ma ñawlu. Mhm. du ma jënd montre. Mhm. du ma jënd dàll. du ma jënd dara. Mhm. lépp samay soxnaa koy jënd. sama ñaareel moo nekk fii ci place bii. sama ñetteel moom adjoint maire la adjointe la ci Ousmane Diagne. sama aaw ma nga ca kër ga. moom it yor xale yi. ñoom ñépp wax dëgg yàlla. dañuy liggéey di def ci seen bopp li ma leen war a defal man dañ ma ciy jàppale di def ci seen bopp. ba pare wëlbatiku di ma defal man. Mm-hmm. lépp loo xamante ni war na ca kër ga. Mm-hmm. dépense da leen di jox loo xam ne buñ la taajee bu ngoonee da ngay xam ne lii joxoo leen ko. Mm-hmm. loolu jigéen ñu baax gis nga dañ ni derrière chaque grand homme y a une grande dame. mais man y a des grandes dames derrière moi. yoo xamante ni nii ay jàmbaar lañu. Mm. ñu ma jàppale lañu. Mm. ñoom ñoo tax jooyu ma yaay mm. jooyu ma papa. parce que bu dul woon ak ñoom mën naa am mu xaw a metti sama côté. mais jàppale nañ ma ci biir. jàppale ma ci biti. contrôlé wuñ ma bu ñu ma woowee daal xam nga luñ may doyee. Mm-hmm. woowut bëgg a dégg sama baat. wa ilaa bëgg ma eh, message an eh, eh, waaye man du ma ko nangu d'abord damay damay arrêté émission bi <laughs> non ah, Adja Adja euh, gis nga. Mm-hmm. jigéen jigéen jigéen jigéen mm-hmm. jigéen ju baax. Mm-hmm. jigéen ju baax. dafa baax ci góor. parce que góor. jigéen moo koy mottali. ndax jigéen. Euh, ci fàllare góor lañ ko dindee mm. kon góor manqué na jigéen manqué na ñun ñaar ñëpp kenn matu ci kon ñoom ñoo ñuy mottali mm. kon bu fekkente ni ñoo ñuy mottali mm-hmm. wax dëgg yàlla am na benn comportement boo xam ne ñoom suñ ko amee mm-hmm. ajaa man dama tàng jër jër jër wallaahi lazim dama tàng fi may gis nii mm-hmm. mais gis nga samay soxna wallaahi lu ma tàng tàng tàng tàng danañ ma seral wallaahi lazim man dama ne la samay jabar nee naa la ku ci ku ci ku ko yàlla mais ku ma ci ku ci at génnoon ci manit da nga mën a sëy parce que dama lay teg loo xamante ne nii beneen góor xam naa du la ko teg loolu yëpp nag li tax ma koy def dañu ne góor gu tàng njariñal doomam la ndax bëgg naa ëllëg samay doom tekki mais dañu ne jigéen ju tàng baaxul ci ay doomam moo tax du ma nangu mukk sama jabar di ma gën a tàng ma parce que damaa bëgg ëllëg samay doom ndax samay jabar sonn nañ sonn goo man goo xamante nii bëgg naa ëllëg seeni doom wax dëgg yàlla li ñuy liggéey sama kër yàlla fay leen ko am naa jabar yu baax mm-hmm. am naa jabar yu ma bëgg am naa jabar yu ma yëg yu ma faale Mm-hmm. mais nag yàlla dafa def nag mm-hmm. ñu bari ku xam nañ ma ci nii mm-hmm. lu bu fekkonte ni lii may wax nekkul ci yow fii laa la koy waxee ci télé bi Sénégal gépp di ko dégg mais wallaay lazim jabar yu baax laa am jabar yu ma yëpp jabar yu ma fonk yoo xamante ni nii euh, ajaa bu ma euh, bu ma yaboo ni man li may lekk maa ko dàqale dañ lay laaj dan nga bëgg yàpp xar wala yàpp nag wala gi loo bëgg lan lay laaj pour togg ko loolu nag boo ko amee jabar yu mel noonu mm-hmm. yàlla day def sa xel day dal mm-hmm. sa liggéey it yàlla da ciy def da ciy teg loxoom mm-hmm. loolu wax dëgg yàlla maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax pour diggante sama liggéey ak sama sama kër aw ma ci benn problème samay doom it wax dëgg yàlla yar naa leen ci siraatal mustaqim ñoom ñëpp bu ñu yeewoo dañuy dem jàngi bu bu ñu wàccee ñëw seen yaay toppatoo leen man wax dëgg yàlla kër ga bu ma xëyee génn fa 9h ma fa duggaatee 9h ci guddi la. kon seen yaay ma nga xam ne moo leen di lépp moom moo koy xool moo xam la ne ca ñoom. wax dëgg yàlla yar na leen aussi yar bu baax. loolu moom samay jabar maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm franchement baax kon macha allah mu nekkoon émission boo xam dafa daal di ala daw dégg nga Ousmane Ndiaye tàgg nag ñi nga xam ne Badou. tagg na ñi nga xam ne mooy ay soxna macha allah waaye soxna ki ci mel ni aawa buuru këram nee na moom dafay daal di gërëm jëkkëram bu baaxa baax ndax fu mu toll xolam dafa daal di tooy ñaareel bi nee na moom fu mu toll mi ngi jooy ndax dafa daal di sant ki nga xam ne mooy Ousmane ndax koo jëlee ne macha allah indi ko foo xam ne macha allah daal la daal di wax ñetteel moom ne na saa bu xëy de daal di bég ci yow kon Ousmane yow tey daal sa émission dafa daal di ala doomi ndax dégg nga sa aawa yi ak sa ñaareel sa ñetteel macha allah li na daal di seeda den rek laay laaj ndax pare nga pour am ñeent wala déet tëj nga say bunt wala tëjoo. waaw non ku am ñett foog a jëm ñeent. ñett moom boo ko fa nga ñeent. kon ñetteel dégg nga boobu def gën a El yaroon nag. Eh. gën a El Hadj du fa dëkk yow loolu war nga koo xam sax këram élage ragal du fa dëkk ñun sëñ Munir mooy suñu xalifa mooy suñu baay. macha allah macha allah. <laughs> loolu ma ko waxee ëmb na lu bari. muy sëriñ bu am fit. bu mhm. ñëna dëgg. allah bu tegu ci na siratal mustaqim njëgeen maamaas yàlla na yàlla guddal fanam. Amin amin. foofu kenn moom du yar kenn muy doon ragal. Mm, te bi ñuy doon xale yi këram lañ daan nekk. <laughs> moom rek moo fa amoon télé jamono yooyu sëñ Muniru buñ na ñëw ndaysaan ci salle bi. Mhm. ndeysaan seetaan si Tom Saaye wala Dartaña. Mhm. salle bi day fees dell boobu école ba lañ daan jógee. ndaysaan boobu école bi kenn miiré ko dañuy xëtt rek dem këram bu ñëwee day fees dell ndeysaan sëñ Muniru ci mbaax gi day génn bàyyi ñu fi ndeysaan ñu toog di seetaan sa ba saal bi fees dell dell ba 9 heures des fois mu toog ak ñun di wax ji daraaye di kaf ak ñun naan eh yow saay saay nga yow moo ku baax ñu noonu billaay wallaay taala yàlla dina guddal fanam amin amin amin muy euh, njëgeen maam Assa Patrick Demba Yor ëma dañay mata sall di wax njëgeen na lo dundu doy jarbaati seuti xarit bi ak soppe ñepp ñong lay ñaanal borom ñaari khilafa gi di wax ngeen yàlla na yan bi gëna oyef lol lol lol ci yow ba nga li sa papa dundu yàlla na nga dundu lu ko raw ngeen maam as bu non la wéré ko wéré sax na dañuy daal di koy daal di bëgg ndax yow sa daal togal fa dafa daal di am solo lol ya Ousmane sa dernier mot li nga xam mu nga tagato askan bi lay sétan ndax tay émission fa daal di ala daw wa Adja tay am xamna ni dama la dama la dama dama li wa li li sama li suñu réalisateur bi di wax légui ni waaw tay mom dama la dama dama laa xaw a coincé parce que yaa ngi jaaxle sax ba may tuddee Ousmane. waaw gis nga parce que xam naa ne tey moom tey moom mayuma la dara. waa Adja xanaa <laughs> comme ni ko waxee rek. ci émission bi wax dëgg yàlla. Mhm. xanaa di gërëm. Mhm. Euh, ak di sant. li mhm. ma ko ubbee woon waa Sen 24 TV. ndax wax dëgg yàlla euh, ndagg mi. dafa doon koo xamante ni nii xale bu jàmbaare la. ndàgg sama sama taaw. bu goor seigne fallu mhm. bima koy ngenté mhm. dama ko ngenté ba paré fekk ma waron ko fay ndaysan waron ko fay fay gi xawa xawa doy war bo ngenté ba paré rek. Mhm. day doy war lolu en 2011 la won biñu ñu bi ba paré ndag ñew biñu ñewé amuñu luñ mu ñew fekk ndaysan ci place bobu place bi lañ nekkoon sax. mu ñew xol gis fi ben imprimante bu yàqu. mu ne ma grand jox jox le ma bé rek ko. ñu jox imprimante bi mu dem. defar ko continuer bi ci am lu mu ciy def di ci liggéey da koy xool xam ni. Mhm. booy bu gëm liggéey la. booy bu gëm boppam la. parce mhm. que ndàgg man ak moom dañoo yàgg. Mhm. muy doon xale boo xam ne xale bu baax la mm. di ñaan yàlla may ko kattan may ko wér ba lii nga xamante ni mm-hmm. moom lay sumb man bu ma xoolee ndàgg billaahi wallaahi taalaahi mm-hmm. bugaan gay rek laay gis barki Cheikhul Khadim damay xam ni ñoom ñaar dañoo bokk genre palmarès ni ñuy doxale parce bugaan débeem nii la woon mm-hmm. ndàgg nag genre nit boobu la ñu ngi ñaan yàlla teg ko loxo bu baax a baax a baax parce que suñu sag la ñun waa kër Mame El Hadj ah, di gërëm comme <laughs> di gërëm euh, sama sama way juróom ma ko commencé woon ca kër ga muy Baye mu Njaay Mbay mm-hmm. sama magu papa mm-hmm. nga xamante ni wax dëgg yàlla bi sama papa daa làqoo ba léegi mm-hmm. wax dëgg yàlla moo ñu téye moo ñu uuf lépp loo xamante ni nii wax dëgg yàlla namm nañ ko ci kër gi buñ ci wootee waxtaan ak moom mu teg ñu ci yoon wax ni fii ngeen di jaar lii ngeen di def ñoo ngi ñaan yàlla guddal fanam yalla bàyyi ko fi lol ba nga xamanteni dañ koy wéré ko wéré mi bàyyi mu njaay mbay mm-hmm. di gërëm suma mak maktar as mom suma kilifa la duma def dara ta laaju ma ko mm-hmm. lu may def dina ko wo waxtaan ceeg moom mu ne ma nangam wax deug yalla mm-hmm. suma suma suma mak la sama kilifa la ma xarit la di gërëm suma wa marché ñi nga xamni ñom la fa nekkal ñepp muy suñu délégué bu baax bobu di bàyyi Ousmane bay nga xamanteni tay ji buñu démé bañ may tudd ci dëkk bi ak di ma tudd au niveau national wax deug yalla euh, mom joué na ci lu bare bare bare bare bari bàyyi Ousmane bay di gërëm cerna Ndiaye di gëreum Baye Sidi di gëreum Papa Ndiaye Ami Collé ñom Fatmata Si ñom Oumou Ngom di gëreum wa marché central muy Baye Thierno 6 Ali Ndiaye suma xarit suma genn wàll di gëreum Ousseynou Fall Abdoulaye ndoy di gëreum suñu président régional muy Baye dam Diagne nga xamni momi suñu kilifa la di gëreum suñu président national muy président Idi Thiam nga xamni kenn la ci man defal ma lo xamanteni ni wax deug yalla gis gëm na ni bëriwul lu mu def sama yaay dafa génn adina mu ñew sam papa génn àdduna mu ñëw mhm. te président Idi Thiam ku ne xam na ni jotam bariwul mhm. kooku nag maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant di naan yàlla guddal fanam moom it mhm. yokk ay jërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suma place yi di liggéey di xale yi nga xamante ne ñoo fi ne sama doom sama taaw bi ne fii ci place bi mooy Mari Mbay mm-hmm. di ko gërëm di gërëm suma rakki jabar yi ak suma jabar ji nga xam ne moo ne ci place bi di gërëm suma employé yi ne ci beneen place bi ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm waa marché mm-hmm. mu sant desewuma bàyyiwuma kenn maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wax dëgg yàlla euh, gis naa ni euh, am na foo xamante ni nii doomu aadama yi teg nañ ma fa wax dëgg yàlla loolu nag euh, ci ñoom la du ci man parce que nit moom boo àndeek moom rek yaa bàyyi sa jikko jël jikkoom kon nag maa ngi leen sant di sant doomu aadama yëpp di leen gërëm di ñaan wax dëgg yàlla li ma doon wax rek seen veref man maa ngi koy séen mu doon seen 24 international para koy séentu tout insha allahu rabbi yalla dina def mu ag fa di la gërëm Adja di ñaan aussi li nga nek yalla def ci barké parce que yow it aussi nit ku bax nga mm. euh ci famille bu bax nga bok parce que ku bok ci famille jégenen mom mm. wax deug yalla nit mënu la jaay famille mm. nit mënu la jaay dara ndax wa ke Cheikh Alaaji Ahmed jégen mom mm-hmm. fala bok rek day sak mm-hmm. kon yàlla def na nga bokk ca famille booba te wane woo ko tiitaru woo ko wax dëgg yàlla loolu aussi ñoo ngi lay ñaanal yàlla dëgëral la yow it ci nga nekkal muy NG di sa mag ngeen bokk lépp yàlla gën leen a boole ngeen gën a doon benn ñoo ngi leen sant bu baax di gërëm sama waaj yi nga xamante ni moo nekk ci caméra bi moom sama gaañ la quoi Rachid moom sama wax sama sama copain la maa koy gërëm bu baax di ko sant moom it wax dëgg yàlla di rafetlu wax dëgg yàlla émission bi di ñaan yàlla na yàlla def jàmm jërëjëf macha allah mu nekkoon émission boo xam te dafa daal di ala daw mais ndax moom ba tey fi mu daal di téye mënatuma sax wax ndax dama am sama doomu nijaay boo xam ni Ousmane dama sonal lool lool lool sama doomu nijaay moo tax ne laa koy wax su gisee damay japp ni ñoom laa toogal ba ndax ci jamm ak salam ci bir mbokk la lepp la fay daal di xewe dafay daal di neex moo tax ma japp ko naan ko Ousmane rek ma sha allah mom tamit diko gëreem gërëm ndax bañ dikkee amuñu benn problème ci émission bi diko contané bu baaxa a baax di ñaan mom tamit limu sumu ni dal nako ko daal di daan jëm ca kaw ca kanam do fàtte sama caméra man bi muy Rachid Kama nee Rachid Kama lo defa gën lo def loy bëgg defa gën loy def ma sha allah di wax Rachid yow guddal fan lool ak suñu DG bu baax bi projet yi mo xamni ci la dugg ci la nekk ni ñu koy ñaanal yàlla yàlla na réussir ci jàmm ak salaam di leen jox di dig daje ba ëllëg incha allah duma fàtte sax ki nga xam ne ba tey muy Ibu Mbaye yow guddal fan lool borom ñëw bu rafet bi ak Fatou bi nga xam ne dafay daal di seetaan mooy seen 24 dafay daal di safoo saa su ne rek muy Fatou Tall da koy seetaan ak Khady Diouf ñoom ñu ngi safoo seen 24 TV kon seen seen 24 TV yéen la fi nekkal waa askan wi kon acca boog mbir mi yéen a ko moom ca kaw ca kanam ba ëllëg incha allah